ba ñu sant yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi salaa salaam di nuyu saaliw bu baax a baax di nuyu Moustapha di nuyu Kara di nuyu Alseni Sila Mule di nuyu Yatma Mule di nuyu Pape ñoo ngi nuyu Diop Mule di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ne ci kër gi vraiment macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah gis ngeen vite fait baa ngi noonu nu ko saaliw waxee rek. day jàppale ñu bari rab dem mu jinne ñemewuñu kii ndax liquide la bi nga xamante ne ay compose ay composement la lu bëri yi ñu composé fii yi nga xamante ne seen mbañeel la muy rab di dëmm di jinne macha allah ñemewuñu ko boo gisee liquide bi dafa foor dafa am doole macha allah di rab di dëmm di jinne ñemewuñu ko en même temps seytaane yi cet bu liggéey nekkoon sa yaram bi boo ko sangwee day dañ lii dimbale nañu bari sax moo tax nit ñi dañuy jóge fu ne di ñëw di ko ut si fi macha allah am na nag liquide aussi am na tamit euh, ñu ay sachet mooy pour waa bitim réew yi Euh, ci sachet lañ leen koy defarale du duñ leen ko mun a yónnee liquide quoi parce que vol en général euh, liquide du dem moo tax dañ koy préparer en def ko préparer ko en en poudre bu ko defee ñu yónnee lañ ko fekk def nañ ci liñ ci war a def lépp su eggee après nga jël ndox ñu wax la nan nga ko utiliser pour mu mun la dimbali. lu am solo la daal li nga xamante ne macha allah man xalif général dama ci sangu bu baax a baax di ci di ci defaru parce que am na solo xam nga cet yeeg nooxóor yeeg dëmm yeeg jinne yeeg ñu bon yeeg boo ko utiliser moom duñ la mënal dara macha allah. dégg nañ ko ci témoignage démb ki jóge woon Italie. waaw dafa mel ni loolu la doon utiliser. waaw waaw. Hmm. lii la doon utiliser. Hmm. moom am na huit ans euh, bitim réew. Hmm. munul ñëw. papam moo ko fi ñëwaloon vraiment macha allah. ñu defal ko euh, vite fait yónnee ko ko mu utiliser ko. li ne woon ci yaramam yëpp dañ mu mun a ñëw léegi vraiment indil ma ñaari jasineer. vraiment ñëw remercier ma kontaan ci man. Mm-hmm. kon nag dañuy sant yàlla bu baax instant bi nag temps amul. Mm-hmm. ñu daal di tënk rek mën a nekk ci patient yi ah. mm-hmm, Donc vous l'avez compris, ah. Euh, le Khalif général de Djinn l'a expliqué, donc c'est le liquide vite fait, un liquide très précieux. Si vous êtes possédé par des esprits, si vous êtes possédé par des sorciers, vous utilisez ce liquide vite fait, vous n'aurez plus de problème. Et si vous avez aussi problème de boulot, donc euh, vous utilisez le liquide vite fait, vous serez donc vraiment euh, à la portée. Vous, les boulots seront à la portée de, de, à ta portée et donc tu seras vraiment ouvert, tu auras une ouverture Donc les boulots seront à ta portée. and gents, dear followers of TMS TV, this is the precious liquid, what we say the liquid vitfe, really interesting when you are possessed by jinn, when you are possessed by witches, if you use this very liquid uh, you will be get rid of these uh, witches or these spirits. And even if you're having problems to have a job, if you use this very liquid vitfe, you will have job uh, without any problem. So thanks for joining us on TMS TV, your favorite channel.